ah kii kon kon lan lay doon lan lay doon mais nag mais nag li mu si jaaxal mooy monsieur le président Macky Sall mi ñu bàyyi mu dem ba pare. moom moo si jaaxal de. àll <laughs> ah, yow yow lan nga jàpp ne moo war a am. ah xanaa ñu toog xaar déglu rek bu benn boo ko yaakaar daal Macky Sall képp kum na kii mooy suñu candidat ñun pare nañ pour ànd jàpp pour jàppale ko. léegi yow euh, lan kan nga jàpp ne jamono ji ci biir euh, coalition Benno Bokk Yaakaar war na war na instant yi nii nekk koo xamante ne xëy na président su waxul ne diw la moo au moins mu yokk ko doole pour ñëpp xam ne kii au moins mën na am dayoo li président Macky Sall am biir coalition bi ba euh, ñëpp nangu koo jiital ngir mu dem wuutu ko. bon xam naa du xam naa ne du ko du yomb nag dana compliqué trop. ndax jamono ji ñoo ngi wax naan benn daanaka sax tibbante tànk door na ndax ku ci nekk ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax naan ay kuñ leen te ñoo bokk ci biir mbalka mi ku ci nekk yaa ngi defaraat sa taxawaay ñeneen ñi sax tàmbali nañ euh, commencé massifier waat bu baax a baax seen seen wàll ca fa ñu dëkk mais nag na nga bàyyi xel xam nga nit ñi dañuy wax rek comme li noonu waxee naan monsieur le président day def troisième mandat day troisième mandat. Mhm. problème bi mooy kenn xamagu lan mooy ñoom ñi mhm. nekk ab ñoom ñi nekk euh, benn mbokk yaakaar. Mhm. c'est sûr que moom nekkul ne tey la ñu commencé waxtaan bi. waaw nañ ñu toog xaar patiente bu ñu joxee ne kii mooy seen leader man jàpp naa ne li ëpp si benn mbokk yaakaar danañ ko jàppale te buñ ko jàppale président jàppale ko. incha allah jàpp naa li ñu bëgg danañ ko mais ñi ñi ñi wax naan Amadou Ba a le meilleur Ah, ku ci mel ni daaw da Diallo wala Aly Ngouille Ndiaye ndax ñoom dañu nangu dégg loolu. non pour man nag xam nga mi ngi man man sama choix. Mhm. ma ñett laa jox ñett laa xam ne jàpp naa ne ñett ñi moom. Mhm. kenn mën na see génn. Mhm. sama abi nag benn bi mooy Aly Ngouille Ndiaye. Amadou Ba. Idrissa Seck na quatrième bi mooy euh, ministre de l'intérieur. Antoine Diome. Antoine John. d'accord tout est possible. d'accord. waaw tout est possible. d'accord daanaka yow sax tund nga. tur mais fël nga foo xamante ne moom kenn xalaatu ko woon mais on verra daal. waaw moom daal moom eh, yàkkamti moom eh, li waaj naa yàkkamti yàkkam yàkkamtee xeex moom. Mhm. jëru ko nañ jàkkaar nañ xaar tuuti rek. léegi tey yëf yi dina leer ñu ne kii mooy suñu candidat nit ñi wàcc ci terrain bi na préparer élection yi nag. Mhm. waaw eh, léegi ñi nga xamante li gën li gën li gën yàlla moo ko xam yàlla na yàlla def li gën mu nekk ak suñu liñ bëgg. d'accord léegi eh, ñi nga xamante ne ñoom dañoo dañoo wax naan Benno Bokk Yaakaar daanaka tur wi sénégalais dañ cey doyal ndax suñu bëggee reñe ñoom ñu kerewaat beneen coalition bu bees. non loolu loolu nag pour man nag man jàpp naa ne yéen pa yéen journaliste am ngeen ci benn part de responsabilité. ah déet ñun ngañ information dañuy jot rek di jàllale ah. après ku yaay def sa jàngatu bopp mais am na mais am na si benn su fekkee ne da nga fekk benn waay ju nekk Marseille wala benn waay bu nekk Dakar wala Pikine livre de si joxe benn abim da nga bëgg koo tasaare na Sénégal li si ëpp lii la ñu wax su boobaa tamit yéen da ngeen di jaxase xelu nit ñi <laughs> te fekk na benn personne rek moo toog da wax xalaatam. Ah, ñu ne li ëpp Sénégalais wala Sénégalais yëpp nee nañ loolu tam day jaxase day yàq xelu nit ñi. ah mais ndax xalaat du xalaatu benn nit mooy dem ba nekk xalaat général wala loolu. non mais dafa am ñoo xamante ni comme par exemple koo xam da nga nekk ku Sénégalais yi xam. Mhm. ku nekk kilifa. Mhm. wala nga nekk homme politique. Mhm. boo waxee wala nga nekk journaliste bu nit ñi xam. ku am xam-xam boo waxee xëy na man nañ nit ñi mën nañ xalaat ci li nga wax. mais benn individu boo xamante ni koo xam ne xamuñu ko. xamul sax lu mu réeree dem jékki-jékki rek ñu jox ko micro mu wax xalaatam ñooñu <laughs> lépp Sénégal yi li la ñuy wax yéen journaliste itam ku mel noonu warul leen ko jàllale. <laughs> yaa ngi sànni xeer de ay ah, garaaw. am nga si pas de non non non mais am nga am nga si pas de rek. d'accord man damay seetlu lu bari nag. Euh. damay seetlu lu bëri su fekkee ne kenn ku xam dafa bokk si. ci APR wala benn boo ko yaakaar. Mhm. du leen ko may temps sax mu wax li mu bëgg a wax mais su fekkee. non non non rek. non non temps ngeen di gën a may temps pour. temps bi temps sax su ma doon xool ku ci nekk daanaka doo wax lu ëpp trois minutes mais comme je l'ai ñëpp bokk euh, bokk yem ci ci antenne bi ndax képp kuy jël sa crédit di wootee du ñu ñoom la koy jëndal donc avis tamit du ñu bàyyi ku nekk. aussi ngay xaabaabal di wax ay. secteurs loolu loolu mooy seen rôle. loolu mhm. foofu leen di xaar tamit. Mhm. Mhm. mais mais même su fekkee ne du su fekkee sax du yéen mais lu ëpp ci journal yenn ñi lu ci ëpp dañ koy def dañu bëgg nit ki kii wax kii wax safaan moom la ñu gën a bëgg a ak ki nga xam ne kii wàccee kii wax di wàcce tension bi di wax wax jàmm ak lii dal réew mi daanaka da ngay dégg sax dañu bëgg mu effacé wu ba kañ ñëwaat <laughs> te pourtant kooku lañ kooku war a gën a mën a déglu. kii kii wax jàmm kii wax lii wàccee kii wàccee tension yi. Mhm. mais koo xam ni daanaka ay gat sa gas ay sànni xeer ay nañu wàcc jour tel ak loolu sax ñi di ko dégg. ah mais tamit yaa ngi sànni xeer de xam nga moo tax <laughs> non Sénégal dafa dafa dafa nekk koo xamante ne Afrique. Mhm. monde entier bi ñëpp ñu ngi doon xaar naan troisième mandat bi dina taal Sénégal dina indi ay jafe-jafe. Mhm. ba sax yenn yenn événement yi passé woon da ngay nekk fi ngay liggéey sa fekk ak yeneen africain ñoo naan diglu. Mhm. li am Sénégal. diglu li am Sénégal yow doo am am loo wax day démb ñëpp ñu mhm. kenn ku dañ ko war apprécier mhm. ñëpp ñu juble parce que Sénégal suñu Sénégal la mhm. bu defaroo ñu ñoo ko defar bu yàqoo tam ñun ñoo ko yàq France gi yaa cinq guddi yoo xamante ni li fi am kenn mënu ko wax kenn mu taf gisoo benn benn prince africain bu koy wane naan xoolal am Afrique mu am France mi ngi nii. te ñu ngi fi doon daaj ay centre commercial ay magasin ay bien public toj ay kaar ñetti guddi yoo xamante ni kenn nen nelawul. Mhm. France yëpp nag. d'accord mais xoolal Sénégal li fa amoon benn guddi la rek àdduna bépp réseaux sociaux yi kenn ku nekk di ko partager partout rafetul. d'accord merci. merci ñoo ngi lay jaajëfal. bu baax a baax ok merci beaucoup jërëjëf yàlla yàlla def jàmm. merci beaucoup kontaan amin amin amin di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne aussi jamono juñ toll ñoo ngi ñuy teewlu ca France ga nekk suñu ko daal di duggee nag suñu xale dem suñu euh, compatriotes sénégalais yëpp ya nekk daanaka nag ku lim jum waaye ngeen may may rek ma tànn ci ñenn yi nga xamante ne xëy na suñuy am ni jàmm lañ dañoo ngi seetaan sax jamono jii nii euh, waxtaan wi sunu suñu papa du Bari suñu xel day euh, day dem ci moom bu baax a baax ñoo ngi koy nuyu moom nga xam ne moo nga ca moo nga ca ca France Gilbert Pereira fàttewuma la borom Paris ñoo ngi koy nuyu itam di ko jaajëfal Serigne Ndiaye borom Espagne maa ngi lay nuyu di la ziar euh, di la jox sa wàccuwaay bu baax baax Faaramata Ñang itam maa ngi koy nuyu Mohamed Mbodj euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi ci chat en direct bi di euh, di bind euh, message yi nga xamante ne jàpp nañ ne mooy seen contribution ci waxtaan wi moom jàpp na ne réew mi jamono ji Faaramata Ñang moom jàpp na ne réew mi jamono ji mënuñu wéyal ni nga xamante ne noonu la noonu la yëf yi daal di daal di demee ndax nee na Ousmane Sonko moom homme d'état la donc yenn tuuma yi mënuñu ko teg ci ci ci ci deram donc Faaramata Ñang ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu sa contribution ci waxtaan bi ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñuy seetaan itam dañ leen ñaan à chaque fois rek euh, soo leen soogee euh, jot ci live bi ngeen daal di like bu baax a baax a baax a baax li nga xamante ne moo di vidéo bi day tax aussi ñëpp ñi nga xamante ne abonné lañ ci chaîne bi vidéo bi daal di dugg ci tendance yi ngir rek ñëpp mën cee euh, daal di daal di jot ngeen partagé ko aussi ci ñëpp ñi nga xamante ni seen i jege ñaa leen ngir ñun ñëpp ñu mën a jàngandatoo li nga xamante ni moo di actualité fàttali leen ne li ñuy waxtaanee bokk na ci ki nga xamante ne mooy euh, Birame sule Diop euh, nekk euh, maire bu commune bu Thiès Nord nekk président groupe parlementaire Benno ngeen baal ma Yewwi Askan Wi jamono ji nag convoqué nañ ko ca sûreté urbaine salaamaaleykum. waaw Jérôme na nga def maa ngi ñëwaat quoi maa ngi jégalu. waaw. xam nga Ousmane Sonko dañ ko tuumaal. Hmm. daal ne viol ak menace d'arme menace de mort. menace de mort kon. Mhm. waaw bañ demee ca àtte ba lu ñu wax. Euh, dañ ko dañoo reca dañoo requalifier les faits. mais niñ lan la ñu wax requalifier mooy lan. maanaam la ñu waxoon ne moom moom lañ ko tuumal. du loolu moo am du loolu moo am maanaam du lañ koy toppee. ne dañ ne loolu amul. waaw loolu la ñu wax. waaw nee nañ viol amul. waaw. menace de mort amul. waa waaw pourquoi nit di nekk ci woote naan Ousmane Sonko dafa violé xam nga loolu tamit jaaduwul nga bàyyi ko mu jàll. ah Ousmane Sonko lu mu violé. Mhm. comme ñi ko ñi ko ñi ko taxaloon ñoo dem ba ci tribunal ne loolu amul. Mhm. te bu fekkoonte ne réew mu am yoon la. te mhm. te direction de euh, section de recherche fa lay yem. ak ak capitaine Touré. capitaine Touré ba mu ñëwee xool xam ne li ay tappale la la la la jël dossier bi ne nii jamul fen Mhm. léegi nag procureur daal di jël procureur bi ñëpp gis nañ ko mooy euh, Cheikh Basirou Gueye. Serigne Basirou. ndax la mu defool Macky Sall Sall buloo boobu sax moo tax ñu yóbbu of naag léegi pour làq ko foofu ana ana ana ana ana ana ana Basirou Gueye ana kii kon euh, capitaine Touré dàquñu ko dàquñu ko ana al al al Ousseynou Gueye bi ne woon viol amul. gynécologue ñu dem di ko menacer que di ko jëf lu kenn xamul xam nga tamit nit da ragal yàlla bañ nit ku taxul nga dem naan dafa violé di wax loo xam ne li ngay dara du ci dëgg nit da booy wax da ngay wax loo xam ne leer na la waaye wóo na ne yow yow fekkee woo mhm. gisuloo yow ñi doon tuumaal tuumaal nañ ko dem nañ ba ci cappaandaw ji neen lañ ko doon tuumaal amul mhm. waaw nga nga bëgg a woote fii daal ne dañ violeur la mais loolu. Ah. ñàkk loolu ñàkk ñi ma yàlla. xam nga xam nga xam nga man li may wax rek mooy euh, comme je l'ai dit à chaque fois ku ci nekk ak xalaat bi nga xamante ne moom nga am nun nous ne sommes pas pour comparer li nga wax ak li mu wax ku ci nekk li nga wax dañ la koy nangul rek dañ jàpp ne sa avila la su paree itam dañuy retenir l'essentiel rek et puis on passe à à autre chose. vraiment merci beneen bi may beneen bi may daanelee mooy Macky mm-hmm. Sall. Mm-hmm. amul lenn lu ñu koy féliciter ak lu ñu koy constitution bi ci boppam. moo ko ne amoo droit def ñaar ñetti mandat mhm. révision moo amoon pour durée mandat bi deux mille mhm. loolu lu leer la képp ku ne Macky Sall amoon na droit troisième mandat c'est pas vrai waxoo dëgg ñi may yàlla weesuwul loolu moom ci boppam li mu wax xam na ne du dëgg d'accord merci Macky Sall ci boppam ba mu ko waxee naan du yoon may na ma ko c'est pas mhm. vrai yoon mayu ko ko